et puis maire Touba vraiment statut spécial bi mi ngi dox gaa mais xam nga maire dafa am lu bëree bëree bari loo moom moo ko war a saytu te bu ko saytuwul rek pour mu am xaalis du yóbbu man dafa am yoon du ànduma ci gis nga lu mel ni maanaam marché Ocass centre commercial yi benn centre du fay ay taxes dëkk bi lu bare bare bare dafa war di génne am na yeneen yoo xam ne si ay recette la war a mën a génne ca du ko génne yooyu dañ ci war a dox bàyyi maire bi ay responsabilité ay prérogatives am yi nga moom la war a accomplir mu accomplir ko mais marché yi ñii yor ko hmm, suuf si ñii yor ko leneen ñi yor ko leneen ña yor ko loolu du tax maire bi am maire maire bi am doole pour maire bi am doole dañuy fal maire bi mu jox ko lépp mu gérer lépp fu recette mën a war a mën a génne ñu dem fa mu génne ko fa mais bu fekkee dañuy ay intermédiaire ci diggante bi yoo xam ci ne ay hiérarchie lañu wala ay chef coutumier yooyu day yàq ndax bu boobaa ñoom ñooy dox diggante maire bi ak peuple bi ca loolu mooy li am présentement am marché Ocass jël kilifa teg ko fa kilifa ga dox diggante maire bi ak marché bi di dem wax ak waa maire bi ñëw wax ak waa marché bi léeg-léeg mu yooyu amul benn sens nañ bàyyi maire bi ak marché bi ñu liggéey direct épuisement bi man li ma ci gis mooy damaa jàpp ni avant ñu koy def waxtaan bi dafa manaam sareet da du jutoo fas man bu fekkoon ni damay conseil ñi nga xam ñooy déguerpirlu ànd naa ci de mais bu ma doon conseil ñiy def déguerpissement bi dama leen di wax à ce ñu waxtaan ak askan wi ba pare jox leen benn délai bu gën a yaatu bu ñu leen jox et ñu bañ koo maanaam ñu yemale ko maasale déguerpir lépp bu ñu see déguerpir ku nekk ci mbedd lañu wax xam nga Touba mbedd yi fi sakk bari na am na mbedd yoo xam ci ay kër ñoo leen sakk kër dikk ci mbedd tabax fa kër am na fi en pagaille li may wax maanaam lu ma xam la am na fi plan yi plan yi boo ko tàllee ci dëkk bi plan directeur bi boo demoon Jurbel tey jii ñu jox la ko nga indi ko fi nga tàllal ko bëri na fi kër yooyu gis yoo xam ne si ni ci digg mbedd lañ nekk yii nekk ci réserve yii nekk ci espace public yii nekk ci santé yi nekk ci école yii nekk ci leneen ak leneen am na fi am pagaay dama foog ni nag buñ dee dégg xam nga man loolu defoon naa ci benn sorti ci benn rajo de la place xam nga ñun waa Touba dañoo problème

ab dëkk mënul am vingt cinq ou vingt six forages ba pare di am ay problème en fait <laughs> horizon vers xaw ma nu ñu koy wooyee noonu benn kuréelu jeune la bu taxaw ay jeunes yu jàmbaar lañ parce que ab jeune aussi parti jeune moo koy animé l'animation de chaque parti politique doit être gérée par la jeunesse jeunesse bi loolu mooy seen rôle. King Kong ku mu mën a doon responsable bu mu mën a doon nga nekk ci département bi da nga leen war a teg loxo jàppale leen parce que loolu mooy doxal parti parti dañ koy animé. ci suñ parti am 45 ans. ba pare di woote ni ay jeunes lañ waaw xam nga dafa am ñoom dañoo ñimiwul seen bopp dañoo ragal il faut dañuy bootu wala ñuy maanaam jafandu xam nga la franc-maçonnerie moom <laughs> day mbir moom ci dafa lëmbee dafa lëmbe jamono jii ñu nekk man man Moustapha Seck en tant que tel du ma cautionner benn acte boo xam ne si ni acte franc-maçonnerie la ñu naan dañ ko def ci diine wala defuñu ko ci diine yow li wax. j'ai vu des yoo xam ne si ñu ngi dëkk bi. maanaam man li ma jàpp ci jàpp ko bu fekkoon ni tey jii nii dama am dogal CNRA wala feneen seen yooyu li ñuy dawal dinañ ko arrêté ndax bokk na ci li nga xam ci ñoom ñooy dugal ci bopp nit ñi la fra